Babacar ñu amati mbéttu contentement baax a baax mais ñu amati mbéttu baax taxawaay bi làmb taxaw tey ci problème bu Lac de Guiers mais taxawaay bi nga xamante ne àdduna taxaw na ci. Bécaye dugg fu ne lijjanti vingt cinq millions pour ki nga mooy Lac de Guiers Lamine Guédiawaye bu ñaan monument kenn du la ci génnee parce que li nga def Guédiawaye depuis muy suñu mu jiitu suñu juddu ba fi nga toll tey ci Guédiawaye di si def ay performance am solo tey si géejawaay di si def ay taxawaay am solo géejawaay te tey bu ñu nee monument géejawaay rek kenn sañu cee tëb Lamine Golo parce que yaa Balla Gaye 40 millions ba 100 millions ba roi des arènes kooku monument la tey taxawaay la dëgër bi ci làmb waaw sant leen gërëm leen bu baax a baax di leen màggal bu baax a baax ah, xaaral ma nuyu mbër mi ku peel rek. bu garaaw <laughs> moom am fan man. naka waat. jël sama avance. ay daa jël sama avance pël pël la nga jël sama avance. waaw di sant ñëpp di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maa ngi nuyu ñëpp du nuyu ax lu làmb waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi lay siyaar bu baax a baax am di la dégluwaat. taxawaay la de guerre parce que dañ si dañuy nga def sortie na ngeen du da du problème mu làmb ay problème personnel la. mais lu ci nit waaye def dañ ko ci jug def ko ci wax ko ci. waaw loolu ma wax mooy dëgg ndax wax dëgg yàlla ndogal moom fu nekk lay jóge te ndogal du jaas tey li dal Lac de xëy na mën na xëy dal keneen mu dal ma man mii ci beneen anam wala si beneen domaine mais comme te ñun ñëpp ñoo bokk làmb te Lac de Guiers ku ko xam làmba tax muy xam kon yoon la waa làmb jug jàppale ko ndax man budul benn ñaar avant lii lépp di am ne naa leen si mbëri la bokk te mbër la nañ ko tëggal combat muy bëre ni ñëpp ndax champion la Lac de Guiers bëgg na si mbër yi gën a néew defet si làmb ji wax dëgg yàlla la de Guiers bokk na ci mbër yi gën a nëbb ci làmb ji mais ndogal mooy ñëw moo ko dal baa ngi koy ñaanal axlu làmb yëpp nañ ko taxaw jàppale ko suñu borom teggil ko natt bi. Mhm. Euh, Lamine tey damay ñëw ak yow tuuti ci géejawaay gis booloo bi ngeen booloo ak ànd bi ngeen ànd ak seen taxuwaay jamono ji ci làmb géejawaay jamono ji dama géejawaay sala bi bang gañe ngeen combat gën a danger ren seen i carrière mun naa ne combat bi bi ngeen perte tuuti mooy mooy si diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène mais su ngeen war a def deux sorties muy samedi ak dimanche Lamine yan taxawaay nga ci war a def ak yan liggéey ngeen ci war a def yéen en tant que coach yi. man li ma daan wax rek laay wax xam nga tey ji comme su ma waxee rek samay wax du neex man li ma war a wax say ji moom laa war a wax chaque jour muy xale yi ñoomi neen la mag ñi ñoomi neen tey ku ci mel ne ay Balla ay Lac de ay Gouye Gui ñoom def nañ li ñu war a def yëpp ci géejawaay tey ji am na lu bëri suñ ko ràññee ci géej waay grâce ñoom la mm-hmm. surtout Balla Gaye 2 mm-hmm. ndax moo fi njëkk dugal roi des arènes géejawaay mm-hmm. kon Balla Gaye amatul leen luñ koy toftal di ko wax tey jii tey jii su doon mission mën naa ne mission accomplie la def li si des fi ne ni si làmbam mooy rafetal carrière jéem a xool tey jii nan lay defaree tey jii ba am gën a am xaalis si foofu la tool mais Balla Gaye amatul lu muy pa wutatul palmarès si làmb wutatu si dara loolu xaalis rek la ciy wut ak ndam tamit soxla na ko ndax mu ngi ci métier bi xale yi nag ànd bi ñu ànd loolu moo leen war ndax ñoom dañoo war a dem fekk ci seen i mag suñ fi jugee ñoom dañoo war a toog foofu ñu toog moo tax mbooloo mii ñu def nañ ko fexee déggoo seen biir ñaan sunu borom tamit seytaane bañ a dugg seen biir yàlla jàppale leen ñu déggoo juboo ànd doon benn combat bu ci waaye am rek sunu borom defal la ndam. Mm-hmm. mais est-ce que euh, coach su Guédiawaye yi muy coach su Ikiri Waalo coach su Ikiri Balla Gaye et cetera et cetera est-ce que yéen coach yi am ngeen benn groupe ngeen di diisoo des di waxtaanee yenn combat yi di xool leen encadré xale yi parce que démb dama gis benn image bu garaaw na démb xam nga ñun ay waxtaan mais dañuy nekk seen biir des fois mais démb dama gis euh, su ma gisee euh, yéen ak waa Ikiri Waalo bañ tasee dem si si roi bu bi xale yi ni ñuy kafe bëggante seen biir jàppante di kaf di waxtaan loolu dafa loolu dafa loolu dafa loolu loolu mooy ànd dëgg loolu mooy rafet dëgg ku ci yor euh, téeméer yéene ko moromam jëndal ko mu lekk man dem image boobu daf ma dafa ma dèjà daf ma tuuse man. waaw mooy li ma wax rek tey ji ñoom ñëpp benn lañ. tey ñoom ñooy xale te ñoom ñoo tollu si buntu am toll si buntu ut kon jar bu jarul moytonte jarul noononte jarul lépp ku ci nekk sa wërsëg sa làmb ak lu mun munti xew di ko lekk fu ci nekk fi sa sa tollool ak li nga war a am di nga ko am loolu moo xam daa ko mais côté entraîneur yi man awma sens interdit ak kenn roon bu écrit day ñëw samay écrit day ñëw école de Balla Gaye su ñëwee fee man damay ñëw man ko roon tey yaay entraîneur diriger man mii damay dem écrit waal roon ne ma diriger tey jii ku ci mel ni kët su élage gis nga ko musul teg tànk école de lutte Balla Gaye xamul lu may préparé sama mbër xamuñu lu ñuy daj te gis nga heure bu ñëwee stade mhm. day ñëw ma ne ko échauffement jot mu ne da leen di échauffer ma bàyyi ko ndax échauffement mettiwul te su ma neexoon ma ne ko doo fi échauffer ndax ñëwoo assisté booy xamoo ban toog la far la tool xamoo gaañu naa gaañuwul mais dama ko bëgg a wax ne ñun ñooy géejawaay te ñun ñooy doon benn ñun benn lañ tey ñun entraîneurs yi war nañoo déggoo ci lépp dañuy am mbër ñëw ma bàyyi leen ñu ko ñu sama mbër ñu conseillé ko ñoom seen i mbër dañuy bëri may wax ak moom écurie Walo ak école de lutte Balla Gaye yàlla dafa def mu doon benn tey jii mën naa ne géejawaay moom ne maa ngi ñaan daal yàlla na fa jàmm yàgg daal ndax guddi yuñ toll moom gis naa leen te ci liñ nekk nii man moo ma gënal da ngay ouvert pour wax sax da ngay ouvert pour nekk seen biir man defar naa géejawaay non xaw ma ko yàlla da nga mën a defar yàlla. man maa defar. waaw ba tey parce que maa doon wax guddeeg bëccëg ñu naan Abdou day tas ma man dama bëgg ñu ànd parce que man falaa man dëkk. abu xam nga tey ji tas du kesoo tas yow tey ji léeg-léeg nga laajtee benn too boo xam ne nit ñi duñ ko gisee noonu dañ naan kii mooy yàq fekk kii tey ji nit di nga wax joo xam ne ni tey ji day garaaw lool suñ déggin mais wax juy defar la mais tey ji li ñuy wax rek gis nga mën a dégg am dégg-dégg moo ko gën a wóor te sénégalais yi tey jii mën nañoo dégg mais duñ am dégg-dégg moo tax dañoo naqaree waxal moo tax ba tout le temps kay man ku ci mel ni man tey damay gis loo xam ne dëgg la sax mhm. nga war see jaar sax da tiit see jaar ndax nit ñi da ngay mujjee xool noo ko nës nësalee rek raay raay rek jaar neneen mais maa ngi ñaan daal géej waay combat yi ñu am mhm. caat daado faal mbaam bi moom mooy ibbi bunt bi samedi mhm. moo pam dooy maa ngi koy ñaanal sunu borom defal ko yàlla na ko yàlla dooli sutura kàttanal ko mm-hmm. leeral yoonam ba mu am ndam dimanche incha allahu rabi Jackson nga xam ne moom sama waay la sama lépp la. yow ñam nga kii ñam nga saawaay Lac Rose. waaw fils fils de balle moo ko ñam. ñoom ñaar ñoo doon dóorante. mais pare fils de indi. waaw tey ji xam nga man tey damay wax benn affaire man li ma mën mooy préparer mbër. Mm-hmm. entraîner la mais am na foo xam ne mbër yow yaay wane sa bopp wane sa liggéey tey man lu mënti xew si 16 ba laay toogee. nit mbër mooy li may wax rek mbër kenn mënu ko def kenn champion kenn mënu ko def kenn champion nit moo ko mën a def boppam mbër nit moo ko mën a def boppam entraîneur bi dàq entraîné si sa àdduna su la yoroon di la entraîné te amoo ngëm bi doo dem moo tax tey jii champion ak mbër nit moo ko mën a def boppam maa ngi ñaanal Jackson yàlla na ko sunu borom defal ndam si kaw Lac Rose di ko ñaanal tey jii ku ci mel tamit le trent bi jëmaat gàkko de am na ci combat moog bu laal maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy di ko ñaanal tamit ndigal am na combat moog armée maa ngi ko koy ñaanal bu baax a baax mais tamit di ko ñaanal tamit le 13 juillet sama turandoo Lamine Golo numéro 2. dafa war a bëre premier combat. xale la nag 18 ans la am day doog a dugg ci làmb. na ko na ko day daan. non amin amin loolu laa bëgg yàlla na ko ndax. tey ji day daan xam nit gis la bëgg la ñu tuddee ko façon tur bu ne mu ne man Lamine laay tudd. di ma woo na ma guddeeg bëccëg di ma wax man ko boobu bu ma tuddee ay wax naa guddi wax naa bëccëg dem na ba mujj gi sama kër dafay du fa jógee ah, bi ma nee ba xam ne kii nag kaf ci réew ci ma nangul ko ko tamit di ko ñaanal lim ci bëgg tamit mhm. yàlla na ko sunu boroom jàppale turandoom tur bi mu yor yàlla na ko yàlla def moom mu gër sut turandoom si tur ndax xam naan su ko sutee rek dina am li mu bëgg di ko ñaanalaale tamit euh, sama xuloowaale jaru soo garaa ba am bàyyi noonu ah, sama benn xuloowaale la non du sim sax dama ko doon non garaa nañ bàyyi noonu di ñaanal Balla gay 2 tamit combat bi mu jëm si diggante mook Tapha Tine. sunu borom defal ko ndam. non non xaw ma ko. day fete de day yàlla baax na. moo raw Poutine jamono jii balam la yor charge ay charge comme am taxaw buntu arène nationale dóor boña boña abandonné te ëmma seen nappaaje ko ah man day lamin ku tiitu tiit naa. waaw ak lu mënti xew yàlla na ko Balla daan rek ndax tey ji li ëpp solo mooy ndam li. man su doon dóor Balla gay ba Balla gay di dee si stade bi sax yàlla na Balla gay daan rek ak lu mënti xew yàlla na arbitre di yëkkati loxo Balla Gaye rek ah. ndax ndam moo ah, soxla lañ soxla waaw waaw xam nga bala moom wax dëgg yàlla soomaan la te ku am moom combat moom di nga soo ah, mais tafaatin kenn amee combat génn slogan bu bees c'est que sénégalais yi bàyyiwuñu ko xel nag mais heure bu amee combat dina génne loo xam ne gars yi dinañ ko waxtaanee maa leen di ñaanal ñoom ñaam ñëpp ku si nekk am jàmm ak tawféex ba jouru làmb ja lañ sa bëgg suñu borom defal la ko mais ndam li nag yàlla na ko yàlla may Balla Gaye day ñibbisi si wala day tabaski si fii wala Balla Gaye jot na nag contact si. non ça dépend rek si moom ça dépend moom Balla moom mooy xool lu ko neex rek tey jii mu def ko su ko gisee ni tey jii mën na tabaski si day tabaski si su ko gisee tamit day toog day toog moom ça dépend ci bilan ak côté par préparation foofu ba xam pare nañu ak parewul. mais Tapha Tine psychologique ak yéen ci par rapport forme bi mu yor li wane gis ngeen forme bi bi yoon ci logique daal la ci làmb ku xam làmb xam ne forme ba bëriwut est du ndax Balla Gaye dem yokku benn masse bi Tapha Tine dem vidéo boppam ñëw bëri ak moom ci ci bëri bi. Tapha Tine noonu sax. Ah, tollul noonu soo xoolee yëre yi mu sol la mais Tapha Tine tey su ma la xee benn affaire di ko gëm bi muy bëri Eumeu Sène su fekkee indi woon na cent quarante kilos. Mhm. wala cent quarante cinq kilos. Mhm. bi cent lay indi. Tapha demul pour diis demul pour luure Tapha lépp nu mën a gaawee lépp nu ay réaction mën a gaawee ci loolu la nekk mais Tapha demul sax pour jëli ji poids te yaakaar naa ne ñi séq Balla Gaye duñ ay ngaaka te Balla Gaye tamit du ngaaka gis nga ko mu ngi entraîné Balla Gaye ko gis xam ni form athlète la maa ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex yàlla suturaal ko ba bu mu am benn ndog-ndog ba làmb sunu borom defal ko ndam. prochain combat maa ngi dégg maa ngi dégg dégg naa démb ñu naan moo moog Diène Diouf Kayre et cetera et cetera. ñooñu ñooy ay moroomam ñooñu mooy ay moroomam ndax dafa bëre Diène Kayre combat ba leerul tey combat boobu su doon tey jii tey jii dama dañ ñaan jëlloo la dañuy bëriwaat. jël bu ko bi ba mu daan dafa rafet nag jël boobu da ko joo doof tabaxale woon ko ginnaaw wëlbatiku. tabaxal bi ñuy dem bay wëlbatiku Diène dóor na fes Youssou dóor na teg na ans bi. mais xëy na action moo gaaw mais su fekkoon jamonoy léegi vaar am kon dañ leen di yóbbuwaat vaar mais maa ngi ñaan tamit yàlla suñu borom def jàmm moom it ñi nga xam ne moom mooy ay moromam ñu jël ko ndax tey ji Youssou dama la wax bi dafay reña ne booy yëpp ah tey ji booy yi fi gën a ës yëpp Youssou Ndour moo leen daan ndax tey ji mënoo daan ay belende daan ay ñagas daan ay moor kankang daan ay talfa daan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne wëlbatiku di bëreeg booy booy booy tout le temps toll na si moment boo xam ne nag dëkk bi dafa métti ci moom tey ji xëy na xaalis bi la ji suñ ko fayee day bëre mais tey ji kii di Quench kii di ay moodo Anta bu Thiès kii di ay ah, Diène Kayré ñoom ñëpp mënuñoo bañ Youssou Ndour ndax kenn gënu ko wala jëm kenn gënu ko si palmarès waaw surtout jam ceeri jam waaw jam ceeri mbër la nda non xam nga lu du kesoo kii tey jii làmb soo demee bay takk ngeem waratoo bañ kenn mais jam nañ xam ni doomu jàmbur la te moom it dafa bàyyi lépp observé làmb yaakaar ci moom mbëri nañ bàyyi moytuñ koy moytu toom sii que tey jii nit ku ñuy tooñ la wala dafa mel noo xam ne amaandoo noo jam suy dóor ñoom ñoo opt waa mbër la mais jam su fi dóorewul ñoom ñu rey ko dañ koy dóor ndaama dafa ñëw ba jam téeri Balla Gaye Junior daan na ko tey ji jam ceeri kanaat daan ko gabaar sin daan na ko jam ceeri nit la ni ñoom ñëpp mais damay toog mbëri koo ne jam ceeri ñu naan noo boolewu ma ko sama bilan jam ceeri soutien de famille te dafa bëgg a dimbale ay waajum te daa bokk ci làmb nañ ko jël di bëreeg moom mais moo gën yii ñu koy taxawoo ak di ko amul solo nañ bàyyi yooyu mhm. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm borom place bi Assane Fall maa ngi koy gërëm ndax wax dëgg yàlla bii mooy deuxième fois ma fii ñëw muy nit ku baax mhm. ndax wax yàlla papaam moo tax man ma xam ko ndax papaam lañ daan dem mu ñuy ñaanal benn jour moom moo ne dem leen sama sama palaasu doom oh. boole ñoog ñoom maa ngi faata jour boobu maa ngi jógee Liberté 6 jubal seeg sama moto ba fii mm-hmm. laa fi ñëwee woon yàgg na lool sax torop mm-hmm. mënatuma sax fàttali ko bat année si laa fi njëkkee ñëw place bi moo tax place bi bi ma ñëwee gis ko mu mel nii dama xam ni baax rek moo am solo maa ngi koy ñaanal balaa déwén yàlla na place bi gën a mel waaw waaw ndax fi mu ne nii moom liggéey mooy lépp liggéey mooy lépp mm-hmm. moo tax bi ma Youssou Ndour xëyee woo ma. ne ma nañ dem damay dem kër place su Assane Fall man man fàtte woon naa ko sax mu ne ma kuy Assane Fall ma ne ko mu ne ma boobu maa ngi nelaw de. mu ne ma kuy Assane Fall ma ne mu ne ma mooy ko ñu demoon 26 sa papaam kii expliqué ma ne ko ah ok baal ñu dem. si laa ne ko kaay ñu demaale ndax fi neen tabaski bi jub si na te faa mu am fi 4 mètres jees neer tamit bu ma so ah non du ma demee noonu man dama fee ñëw noonu pour zéro faa mu dagal ma 4 mètres <laughs> yu ma sol kay yoo xam ne pour tabaski bi yaa ma gën a xam <laughs> mhm, noonu la demee mais maa ngi koy ñaanal li mu bëgg ci place bi yàlla na ko sunu borom defal te xam ne àdduna nii la jeune la na nangoo liggéey rek nangu see jàpp rek yàlla baax ndax man lii ma def nii c'est la première fois sax man ma def ko ñëw ci palaasu jàmbur di fa jël ay micro di wax wala dara ndax man ku may fekk sama kër nga may fekk wala si mbedd mi wala parking ba may liggéey mhm. mais comme te kii kóllëre ak nit ku yàgg te yus moom sama doom la xëy na su ma waxee dara mënu ma koo bañ looloo tax ma ko nañ dem mais maa ngi koy ñaanal déwén daal place bii ñu toog sax yàlla bu mu fi am ndax yàlla du lépp doon ay bagage si barke alxuraan kon ah maa rek mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbétte baax ñu amati mbétte bu baax ñëwaat fii si place Assane Fall a ah, gis tey euh, Youssou tamit ñëw fi def ak moom tey émission fii mu amee victoire sax <laughs> te day sax te day sax <laughs> ah day <laughs> day sax day sax yàlla mu ne ba jël émission fekk ma sama place mag ngeen jël ma fa ma dem seetiwaale ji ko loolu mu nekk tamit mbir mu rafet mais tey ñoom euh, muy xamante ni seen mbokk di seen lépp di seen mag di Lac de Guiers 2 yàlla borom def caabi féete ko ginnaaw mu nekk bi doon nattu bi ko dal ci ci kawam mais tey ñu woote arène nationale ñu ne képp koo xamante ni nitu làmb ko kuy dund làmb amateur kenn bàyyi ñu kenn nag ñëpp dañu fa daje tey pour génne ay kàddu ñaan ci état bi ñu dimbale ko ak waaye nit yor tamit ñu mottali ko tamit ci xaalis ba xamante ne amel na ko ñi nga xamante ni mooy ñi mu sekkal problème bi tey noo gisee loolu. waaw xanaa Abdou di am kontaane seen teewaay bi di am kontaane bu baax. di sant bu baax ah di sant Youssou mu jóge ba Géejawaay mu doon acte bu rafet ah ànd ak Lamine ñu doon ñu yàgg ah ànd ak suñu frère bi ngeen ñëw fi mu doon acte bu rafet ma si am kontaan bu baax ba avant tout waaw lat lat lat lat xam démb xam ko tey xam ne jombul kenn li ko dal waaw muy nitu làmb mu commerçant beeg entrepreneur maanaam jombul kenn waaw bu jafe-jafe bu ñëwee rek suñ borom force ne bu ne fii ngay jaar da fi war a jaar te jàpp naa ne bokk na luy gën a defar carrière am di ñaan yàlla yàlla mi ko teg mu teggi ko si anam gu sedd mu nekkoon na jeune boo xam ne man mi fi mu laa juddoo nekkoon na jeune boo xam ne ku ko xam démb doo ko dégg mu wax soo ko gis day jege papaam comme lu fekkoon booy ñu nekk si bay bi sa fekk ko si parce que xam naa ko depuis ba ñu gën a nekk xale peut tey la màgg am kenn ku si nekk nekk si leneen mais xam naa ko bu yàgg nekkoon ku dal ku loo xam ne la dëggee na toll ba jëmi jamono ñu mus ko arrêté lu mel ni ay affaire police yi doo ko gëm. waaw loolu mbir mu yem la ko xamante ne ñëwee ci ba muy nekk xale ba léegi ramasa mosuñu koo def tey yaa suñu borom dëgg la tey ak lu làmb nag def ay taxawaay rafet wax dëgg yàllam ci li ci ci kereeru la dëggee tey pour euh, defal jàppale ko ay ndimbal per Bécaye def na ci rafet ah. fex na ba lijjanti ko 25 millions ñu war ko koo jébbal pour gaa yi dimbalee ko jébbal ko ay mbokkam waaw Père Bécaye moom loolu moo ko war ci axlu làmb parce que loolu la mag di jëriñ ci làmb nit bu fekkee ne yàlla da la war a jiite nga nekk ñëpp nga bay sa waar ku ne Père ku ne xam ne Père Bécaye bëri na ndaw yu bëree bëri ñu ngi ci làmb bokk na ñi nga xam ne ñoom ñoo leen lancé lu mel ni Modou lu mel ni Balla ay ñeneen mbër yoo xam ne boo limee juum waaw tey jii dem nañ ba xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel ci làmb kon bu li amee si jafe-jafe moog la di guerre si kalaaf yi bokk na mag moo xam ne boo yëpp dañ ko doon bàyyi xel dañuy koy ñaasa ne Père Bakaye kaay taal ma kon tey jii lii mooy wareefam yàlla na ko yàlla dimbale ba làmb fay ko fay ko ay njabootam waaw. Youssou lay wax ci Youssou bi. sama frère la Youssou bokk na lu ma ko gën a fonke si tarbi gum tarbi waajuram waaw parce que référence tarbi waay waajuram nekk si ay tànkam. ba mm-hmm. keroog keroog mu ñibbi àjjana. kon maanaam xam naa ko démb. mu nekk soutien de famille. Mm-hmm. damay gis yenn saa yi làmb naan dana ni dana te moom ñi moo gën a yelloo jàppale. parce que Youssou ku ko xam xam ne jàmbaar la. doon doomu mbër xaddi woo ba tey yaa ngi góorgóorlu. yenn saa yi day toog diir goo xam ne day am problème mu làmb kon maa na ko làmb bàyyi xel. te du noppale ko si entraînement man loolu xam naa kon yàlla na ko suñu borom defal jàmm te fay ko xolam. ku mun nitam la. te it aussi ku mun a sonn si nitam la. loo ma mun xewle Youssou fi ah. tey ji muy bànnee muy naqarib noonu lañ ko séq man ak moom kon tey ji bu demee ñëw fii nii déplacé géejaa bu fii daa ñu këram la ñëw moom sama frère du làmb moo ñu boole waaw mais nag ku ne Assane Fall ne Assane Fall global textile mais ku wax Assane Fall si tissu rafet yi <laughs> xam nga te ñu ngi euh, jëm ci li nga xamante ne mooy ci événement fi mu ne nii que ñëpp a ngi xam naa ne daw songu ci yi nga xamante ne mooy Assane Fall tey lu fi nekk ci ay tissu yoo xamante ne tey gars yi daw ñëw waaw bon xam nga euh, ku ne xam na ne ñun événement ku fi ñëwoon daaw ñëw fi ren xam ne dañuy mise à jour place bi. waaw mise à jour nañ place bi defaraat place bi ba nga xam ne yow boo ñëwee di nga gis sa bopp ci biir euh, global textile. Mhm. wàcce nañu brocart wàcce tissu góor wàcce bagage yu raar yoo xam ne. Mhm. doo gis fenn lu fii nga koy mën a gis. Mhm. di woo client yi nañ ñëw daw si ñëw wàññi nañ bagage bu baax a baax baax waaw global globalu ñëpp la global àdduna la kon lu waay foo waay jóge rek boo ñëwee gis sa bopp ci biir kër gi bu soobee yàlla waaw. jërëjëf ñu ngi lay baax maa ngi lay ziar baax di la jaajëf mon frère jaajëf jaajëf Abdou.